ñu am majorité bi tax ñu gouverner comme il faut donc euh, motax fi gis nga do xamé kan moy kan kan moy def sécurité kan moy def communication nangam on est tous égaux de toute façon on est tous égaux mais fi amul titre amul dara on travaille ensemble. mais ben la tey vidéo da ngay am qualité ngay joxé en temps réel jox ko askan wi ñu gis ko pourquoi nga adopter lolé xam nga jamono suy dox euh, da ngay dox and ak mom euh jamono yu ñu toll ni les gens ont besoin de voir ce qui se passe mais en temps réel loolu nag suñu ko amul dafa am benn vide buy am donc moo tax euh, soo lañ xoolee élection législative ba la passé doola dama doon def euh, des vidéos SAV donc suñu génnee benn dëkk suñu demee ba ci kanam ma publier benn vidéo mais léegi dama changer, je dama ko def en temps réel parce que en réalité live doyul live doyul te live yi parfois soo nekkee ci une zone nit ñi

Euh, li xew ci zone bobu non yëpp ba dugal ko su ko defee nit ñi xam effectivement Ousmane Sonko jaar na fii lii moo fa amone nit ñi genn nañ wala génnuñu ni la demee. donc loolu nak daf ñuy permettre voilà liggéey bi gëna set gëna a gaaw mais surtout gëna efficace. Euh, qualité bi nak bon ci loxo bi la ko <laughs> voilà. mais ban étape nga yaakaar moo ëpp mbolo c'est que y a un problème mëno quantifier vraiment parce que diggante que. Passy Nioro Tungel. excusez-moi. alors monsieur le ministre. ah bët na lañu doon moom ca liggéey ba euh, bëggoon nañ ko jël aussi euh, dégg ngeen monsieur le ministre moo ko ni ñu ko waxee ne ñoom ñun dañu mën a daw déglu la ziar. ay eh, delloo ziar sëñ bi. naa mën nga présenté nga kan. man la Saliou gay bokk ci euh, convoi Ousmane Sonko bii def tour du Sénégal. Mm. juste que ne damay rappelé waat rek li ma la waxoon démb laay waxaat rek. Mm. jeunes yi laay wax encore ñu ànd ak dal ànd ak tey déglu président Ousmane Sonko ci programme bi mu bi mu bëgg a mu déroulé ko. Mm. li ma la waxoon laa lay waxaat rek ma ñëwaat ne ci BTP laa yëngu sama mbokki BTP yi nañ def mouvement xam nga dajaloo benn place jàppale président Ousmane Sonko jox ko ensemble majorité mu mën a mu mën a. mais mais ku fi campagne Mouhamed dañ may jëloon lépp li di xew ndax ku fi campagne la waa ji xëccoog moom ci. waa ji moom a gën a sonal ñu koy wax daam moom sama sama kii la mais may leen ma nag yéen nu ngeen ma toppee nii ba yéen nu ngeen ma faaye nii. numéro jigéen ma leen ma àggale lii waay may ma ñëw may ma ñëw. yaa ngi dégg yaa ngi dégg may waxaat jeunes yi ñu ànd ak jeunes yi ñu ànd ak dal jàppale programme euh, président Ousmane Sonko mu jël majorité lépp luñ bëgg a gis Sénégal dinañ ko gis ah. man xam naa waa ji xam naa mooy kan xam naa li mu mën xam naa li mu sañ. pour rappel yow da ngaa jógee ngir ñëw rek jàpp. non non jógee ma Tugal fii laa nekk Sénégal laa nekk. di liggéey ci infrastructure ci entreprise yu mag laay liggéey. Mm. ngi dégg mm. damay wax sama mbokk ñi nga xam ñoo nekk ci entreprise routier yi mm. ah bokk ci infrastructure nañ dajaloo def benn dànk jàppale président Ousmane Sonko mu jël réew mi tëli jolliwaat forage yeeg château yeeg bâtiment yeeg université yeeg yëpp jolliwaat loolu laa bëgg voilà. jërëjëf sama yaay ngi nii ku nekk am nga koo tippoo rafetlu ma sonn ma jaaxlewu ma yaa gaaw si bu ma xiifee nga jox ma bu ma maree nga jox ma kii mooy kii mooy ay dara sëriñ nag bu baax bi ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar alhamdulilah mbaa yaa ngi ñu ngi sant yàlla. démb tey ñoo ngi Tamba nan nga dundee Tamba fii. neex na waaye tambah na de mm. Tamba tàng na waaye sant yàlla rek sant yàlla rek alhamdulilah mm. waaw barke la ñu yore dem moo ma jaaxal yéen a barke la waaw waaw waaw waaw mais dites à votre supérieur que Sonko <laughs> sera Bakel aujourd'hui <laughs> ah mu ne dañuy euh, aussi di tooñaale niñ ko waxee ne clou si campagne bi la Euh, fi nga xam ne moo di hôtel le virage précise euh, fii la leader du Pastef Ousmane Sonko euh, nekk jamono bi nga xam ne moom la ñu nekk di wax ak yéen niñ ko waxee ne coulisse campagne la boo leen xoolee ca beneen wet ba mën naa wax ne dans peu de temps rang bi jub ñoo ngi Tamba mu mel ni ne aussi am na beneen convoi buy romb lii mooy sarmu campagne wareef. lii mooy sarmu campagne. moom mooy kan. mooy Amadou Ly moom it bu ma day baatul campagne. Amadou ngi noonu li woon sarme campagne bi Amadou ak i pikkam boobu yu weex Amadou romb convoi bi. nar nañ képp réew mais jooju ñu ngi ña. ah jigéen ñun Sonko rek lay xam de. Mm. waaw xamuñ keneen. Mm. waaw Sonko rek lay xam. Tamba. Ah? ñu war a dem Bakel. waaw lan ngeen waaj jamono gi. mais eh, lu excellent. yow yow yow boobu ba yaa ngi topp. gis nga gis nga li xew ci réew mi yëpp. Mm. xam nga ne lii du hasard. waaw képp ku bëgg Sénégal ah. joxal euh, Ousmane jox la dañ jox Ousmane Sonko ak ak Diomaye majorité assemblée national ñu doxal Sénégal loolu rek moo ñu dese fi mu ne nii. waaw ndax lépp man na. waaw lépp mën na lépp mën na incha allah. waaw jërëjëf. ok merci pour maintenant dama leen toppal ba tey wan leen ko. Marcel. Marcel la ñu nii Marcel maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi di ziar bu gars yi xamuñu la xam naa yow yaay kan Marcel ñëwal nii. Marcel coono borom pick-up baa ngi nii. ah Marcel la moo tax nga ba lépp ndax Sonko. Euh, bon projet bee ko jar loolu la quoi parce que xam nga projet bi euh, lu mu jar rek sénégalais yi lañ koy fekk si quoi parce que ñun jub jubal jubante la ñu woote tu vois donc loolu mooy loolu loolu mooy loolu mooy loolu mooy priorité boo xam ne moom la moom la sénégalais yëpp bëgg donc ku sénégalais ku sénégalais yi bëgg moom ah min def mënu si dara ku yàlla tànn ngay xeex ngay xeex ak yàlla amul solo. ndax yalla ku mu xas ba tan ci dekai, mbindeef nangul len ko ko di di wax lu bon si ci nit ki te te nga xamne xamuloko manul ma nga gis nak ñene ñi ñi ngi ñu Ousmane Sonko mom di di di wax ak Ousmane Sonko dama man dama di naan fi amul opposition de billahi amul opposition parce que bu ñu amul opposition dinañ tal lenen lulul bés bu ñu yeewoo jàppale Ousmane Sonko indil Ousmane Sonko bàyyi Ousmane Sonko jàppale Ousmane Sonko loolu rek lañ fi nekkee kon nag ñun nañu focus. jërëjëf voilà jërëjëf man ma koy jaajëfal dama leen ñu toppal tey kulisu campagne bi ni ma leen ko waxee ne wan leen lii di xew wan leen li nga xam ne jàpp naa ne gars yi gisaguñu ko ci biir campagne bi ni ma ko waxee ne lépp laa leen toppal campagne la waaye campagne la boo xam ne.